xanaa ñu santaat yàlla rek jullit yonent bi yàlla mi ñu may ñu teewaat gàmmu siwel gi ñu toll soixante-dix-huitième édition bi euh, ñun moom xam naa ne bànneex bu rëy lañ ci am at mu jot nag nii la ñuy ñëwee daayira bi Alaaji Lay Seck nga ko dooroon yàgg na ah ñu topp ci ànd ak moom rek ñu ma doon wax sëriñ bi démb ci teewaayu xale yi ñun dénkaane lañ rek suñu wayjur ñoo ñu dénkoon wayjuru sëriñ bi wayjur yi dem bàyyi ñoo moom ñu des ak moom di ami njaboot dénk ko suñuy njaboot di ñaan yàlla nag njaboot gi am ak néew yàlla ci yàlla def barke yàlla barkeel Alaaji Tayru may ko fan gudd sutura may ko wax dëgg yàlla dëgëral dëgëral gën a ab kiyam quoi ay man-manam kattanam kattanam ci bépp fànn nag ndax allah taar li boot bari na waaye attanut yàlla attan yàlla mi attan yàlla na ko attan yàlla may ko fan wu gudd ñu nag on est toujours euh, dans dans la même situation à Sioul on est à tranquille bon

Touba Mbacké ak euh, euh, def ko Mbar Ñiibi Colobane Kaffrine ba ñëw fii mujj gi Alaaji Leyti am benn R4 ñu jël R4 bi ba si yàgg mu am benn R18 ñu indi R18 bi ba mu gi man mii sama oto daan naa ko fi indi mais dafa mujjoon dem ba oto yi dañoo tuuti woon ci ñun ndax bu nit ñi bëriwul bagage yi day bëri. ñu far mu obligé dugal ci kaar def njaga njaay njaga njaay bi di fees bagage yi fees yàlla di dolli sutura ba léegi ñuy jël bus 65 place te doyut xam ngeen yéen bi ngeen gisee dem bus bi ñëw doyut am na ñu fa des am na bagage yu fa des buñ mënoon a yokkaat itam dañuy yokkaat rek te ñaan dañ ko yàlla ñaan nañ yàlla gaare siwal gi ay ñaar ba ñetti bus ànd ak suñu njaboot ànd ak bagage yu bare def lépp ci gàmmu gi wutuñu ci dara wutuñu ci dara taxawu sëriñ bi ànd ak moom rek ngërëmal yàlla lañ ci wut waaw. xanaa bëgg ngeen maa weer rek <laughs> waaw maa ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ne suñu dog ànd ak yéen ci caméra bi ngi leen di ñaanal fan gudd ak wér yaram da ngeen mën leen bu mel lu ko di sant rek ndax tayru ku jara sant la ku jara sant la. ak ku jar a sant Leyti Seck lépp Leyti Seck rek ndax bu ñu xamee tey Leyti Seck tax yal na ko yàlla xaree aljanna yal na dee di noflaayam yal na réccu lu mu def ci àddina yal na ko àllaaxiraam daaxal àddinaam di leen ñaanal yéen ñii la ngeen mar nañ bu déwénee yal na ngeen mën lu këpp may leen fan mu gudd ak wér gi yaram waaw lépp daal moom nee na gaañ wax dëgg yàlla macha allah macha allah di ñaanal doomam mi nag lu Leyti Seck am yal nañ ko am ci barke yonent bi. yàlla mën na ko yàlla na ko def waaw loolu da laa bëggoon sànni nag. <laughs> xanaa fas yéene togg rek bernday daal pour gan waaw. daaw ak ren non amul benn différence ndax wax dëgg yàlla nañ ko doon defee lañ koy defee chaque année waaw daanaka gaak dana yokk chaque année. waaye danañ koy gérer normalement waaw. sant hmm? Hmm? particularité gàmmu bi ah. c'est-à-dire. Hmm. day gën li wax waaw. waaw. koy waaw mm. waaw ngay dem moom laal na ci wax bi. moom buñ ciy wax moom géej la buñ ciy wax du jeex. wax dëgg yàlla ndax toujours mu ngi xirtal taalibe ci def lu baax ak wax lu baax di leen xirtati lu leen jëmale kanam waaw tax vraiment. talibé gisuluñ lu yokkute rek ci mom waaw dëgg yalla ñu ngi koy ñaanal mom gudd fan rek diko ñaanal ak ay rakam gudd fan bu and ak wër ñu yag ko téw ay dewini dewini dewini dewen wax dëgg yalla mm, gisuñu ci lu dul yokkute daal macha allah mm. waaw waaw waaw sëriñ bi ak Dakar démb dafa nek lu yag yag yag yag boobu temps bu ñaan ñëw parti que boobu oto ndaw bi la naan indi ñu indi ay jaay ñu dem di indi bis kon xam nga am na waaw bu maga a maga a mag allah wax dëgg yàlla te ca kaw rek ca kanam jëm allah. waaw surtout waaw relève bi ah jaar seen tànk yaay yak seen papa yak seen mam rek te gis na la ñi ngi ci macha allah xale yaa ci ñi ci gorgol bu baax ndax daanaka ñom ñoy yore daayira bi xalé yi ñu ci gorgol bu baaxa baaxa baaxa baax deug yalla amna ci innovation yu bëree bëree bëri bëri macha allah te ci kanam rek la jëm chaque année day gën di yok rek sant ko suñu borom. ah mbokk xanaa gën a jàpp gën a rek waaw xamna lu baax mom amul tànku gannaaw tank kanam la waaw. doole sant yàlla rek te ñaanal suñu sëriñ mu yàgg fi te wër ak ay rakam di ko ñaanal ñëpp ñu yàgg ko fekk ay déwéni déwéni déwén kenn bañ ko wuute ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw sant yàlla rek gannaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla may ñu fekkee waat yàlla nañ ko eggaleeg sago ci barke Seydina Muhammad xale yaa ngi ci waañ wi comme ni ñu ko daan defee délégation waañ wi ñoom Ndeye Diop mooy mag mag mooy mag jarbaat yi ànd ak ñoom Binta Touré ak ñoom Aswad ah man dégg ko dul séddale jox leen ñu togg rek ñu togg ba mu neex jox ba pare jox gan yi dalal gan yi berndeel loolu la ñu sëriñ bi sant solo wu ñu summeeku ñu ngi ci waañu rek ba ba set ah mag ñi daan àndal nag seen yaramu sutante te doon ñu doon mag muy présidente Mamadou Kouré ak El Hadj Moustapha Guèye waaw ñoo daan ànd parce que ans ñu ngi ànd ak ñoom ci biir gàmmu gi kon nag bu ñu demee ba xale yi jël relève bi ah Awa Seck muy taaw ak yéen xam léegi ñoo jël relève bi ñun nag nekkuñu fu lu sédd rek toog jàpp suñu jàmbur kon nag yal na nga ko fekkee waa déwén yal na man gi sax ñuy laa ñaanal suñu xalifa bi gudd fan gu ànd ak wér yàlla na fi yàgg te wér. yàlla dund téeméeri at sut lay sekk fan te dese barke bi sunu allaaji bi nga xam ne mooy ñu fi daan indi yal na ko yàlla xare aljanna ak mboolem ñu mu fi daan àndal ñoom Moustapha Samb ñoom Samba sekk ñu jiitu yal na yàlla xare aljanna wasalaam loolu rek laa ci am lu ma ci wax. <laughs> si bésu nijaay Tahirou Kane di jiital nuyoo bi sama nijaay Tahirou ak sama nijaay Leyti Seck. akum njabootam ak sama yumpaañ yi toog ak sama ndey ak sama mag ji naaw a sekk ay da baay moor ñoom mu ñu indi siwal ba ma am fi tey turandoo di ñaanal sama nijaay ji ak sama yaamaram sekk yal na suuf oyof seen kaw njabootu faat sàmba kumbel ñang yépp njabootuk awa ndooy fay gépp ak na suuf oyof ñun bi nuy indi siwal tey siwal neex na ñun ñu fekkoon dañ daan togg ci ay néegu ñax di dal ci baraag bi nekk ci buntu kër gi ànd ak zeng tey nag étage yaa ngi ñuy wër ndox naa ñuy wër ñuy wëgg sa teen ba di indi di togg di takk sunu ndigg ba tey lii ñëw kon ak yokkute la courant baa ngi étage yaa ngi douche intérieure yaa ngi fi télé yaa ngi fi te bi ñuy ñëw ñun fekkuñu fi dara sama nijaay ju goro ji defar mbaar mi si bunt bi Leyti Seck yal na yàlla yokk leeram njabootam gi fu mu bàyyi lu nu am def nañ ko si wër rek la moo nu ñor bu ñëwee duñu sol mbubb duñu sol daal ñu ngi si biir waañ wi rek di togg di yekk di joxe gan kon yal na yokk yalla bu mu nekk sunu mujjeelu gàmmu na sama nijaay ji su dess nak muy chat samba yàlla na sut magam yi aw fan te dessé barké muy mon mbay nga puso mu yalna na ko defal jàmm defal julit assalamu alaykum ñu ngi leen sante di leen gërëm yeen ni borom caméra yalla leen ngeen dinu caméra assalamu alaykum mangi lay di nuyu di ziaré ah di sant yalla bu baax di gërëm sama ñaari wajur di ñaanal suñu way dawl yi yalla yalla xaral xare ci aljann yu ko wéya ah man nak ma tuddu Adja Bintou Touré doobu Marème Seck di jërbaatu Leyti Seck ah di kontan rek ci bis bi ndax kóllëre mo leen boole won sama yaay da ñëk ñew and ak sama nijaay di ñew fi kóllëre googu nag ñu di ko topp ba sama yaay génn àddina may ànd ak sama nijaay ak waa këram ah di kontaan nag ci sama nijaay Tayru di ko ñaanal yàlla fan wu gudd wu ànd ak wér gi yaram ah lu ñu ñu lu mu doon defal suñu waajur yi de bàyyiwu ko ba tey ah di ñaanal nag sama nijaay Leyti dëgg yàlla moog nijaay Tayru moom kenn kenn la woon daal waaw kenn la woon ñoom ñaar li mu ci wax démb gis dégg dégg nañ ko waaw ñun nag ah ñi ñëw bu ñuy wér bu gamu jotee dinañ ñew waaw heure bu ñu soxlaa dinañu gis ah la ci sama dijay lay doon def nag mënuñu ko way ñi ngi jëm di gëreem nak wa kërëm sama umpañi ak njabotam gi di leen ñaanal fan guddu and ak wér yaram di leen nak sama dijay ji fi dess Mor Meng waaw mo fi dess nak ah mi ñuy encadrer waaw di contante ci ñoom dal kontaan na dal kontaan na trop ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di ñaanal yàlla nag njabootu Leyti gi yàlla na yàlla yokk lu lun men ren bu déwénee yàlla nan mën lu ko raw waaw ndax ñi ngi toppatoo dafa seen bàyyi tegoo seen tànk awa sekk ki rakkam ñu ngi ko ci teg kenn xiifut kenn marut te lu waay soxla mu defal la ko kon nag ñun ñi ngi sant yàlla di ñaanal na nijaay Tayru moom yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér ak wérle ah, di leen nuyu nag yéen it ñu baax ngeen bu yàgg nañoo ànd te yéen it sonn leen heure bu ngeen ñëwee yéen ngi ni ngi dukk dukk waaw ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk seen liggéey yàlla may leen fan wu gudd mu ànd ak wér gi yaram ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp yàlla nañ ñëw nañ ci jàmm ak salaam yàlla nañ delluwaat ci jàmm ak salaam luñ fi ñaan yàlla yàlla nangu yàlla yokk sutura bi ak teraanga bi waa kay